wef di jumtuwaayu xarala bo xamne ñu upp ci ñun dañ kay jëfëndiko bu fekke yaangi jëfëndiko jumtu jumtuwaayu xarala bi di wef ñu ngi lay ñaan nga sétane suñu vidéo bi du début à la fin ndax man na la amal jëriñ est ce que xam nga ni jamono ji ñu tollu gaay ñu ngi commencé di def ay arnaque bu baaxa baax ci wef ñu bari ñu ngi leen di nax di récupérer seen xaaliss ci lu mu gëna gaawé naka la arnaqueur yi di def bay lek xaaliss nit ñi ci jumtuwaayu xarala bi di wef dañu lay envoyer xaaliss ci sa compte wef dal di lay wo téléphone ni la dañu joom envoyer la xaaliss ci sa compte ñu ngi lay ñaan nga transférer waat ñuko ko bo xolé sa compte di nga gis que ni effectivement envoyer nañu la xaaliss ci sa compte wef légui nak bu fekke sa compte wef amon na xaaliss ci jamono boobu boo leen ko transféré waté sa xaliss ci bopam moy dem parce que dañuy annuler opération ba ñu la envoyé woon par exemple sa compte wef amna 100000 francs bu ko defee ñoom ñu envoyé la 100000 francs nga gis que ni yaangi ak 200000 francs ci sa compte wef légui nak buñu ñu la woowee téléphone ni la dañu joom envoyé la 100000 francs nga transféré wat len ko bu ko défé ñom dañuy demander wef annuler opération bu ko défé wef da fay annuler opération bi ba nopi transféré len 100000 francs yi ne woon ci sa compte comme opération ba annuler ni la arnaqueur yi di doré ci dóoree si xara la bi di wef kon nak képp ku la woo di wax ni dafa joom envoyé la xaliss ci wef wax ko mu woowaa Wave pour que ñu annuler tàmbale bi wante bu leen ko transféré waat benn yoon ñu ngi lay jaajëfal ci seetaan bi di la ñaan nga partagé vidéo bi ak say ndax mën na leen amal njariñ